wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée national vidéo yaa ngi fii xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi ma ne sénégalais yi njumte am na de ndax jox Macky Sall deuxième mandat musiba la ci Sénégal ma ne woon sénégalais nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir du yéene de yàlla xam na ni yéenewu ma lool Sénégal yërmande rek lañu fasal Sénégal ci suñu xol bi mais xam réalité bi mo taxone mané sénégalais di ngeen souffrir wa mom def na ñenti at ko tegu est-ce que am sénégalais bu mëna wéddi ni sénégal yaa ngi souffrir fi mu toll nii ana mbënd bi ana njëgu dundu gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw ñi ana paj mi ana jang mi lan mo dox ci Sénégal nañ mo wax ben secteur bo xamné mi ngi dox Sénégal. kan moom ma ko mën a génneel amut dara doxul kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji attaque genn wàll ko dese may leen attaque genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fu leer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeew combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlëm ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey combat bi dafa door bi mu commencé ay tappale mois de mars ñu duma ko sur le terrain mu ñëwaat élection locale li génn ci urne yi ñu duma ko luy ville bu mag mu ñàkk ko ñëw élection législative ñu duma ko bu gën a métteeti te bu ñu demee 2024 ñu faxas ko mu dem muy doog a yeewu naan gouvernement de combat Il kay moo des bopam des lions qui dort et qui ne se réveille jamais Ouais, gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat pour régler problème sénégalais là déedéet dama ne gouvernement bi kan moko jité Amadou Ba Amadou Ba yorna ministère de l'économie et des finances pendant sept ans Tay économie Sénégal petit na ba ci a ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale ñu jox entreprise étrangère ci du yoon wax na ko assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen ak feneen lépp sous le magistère de Amadou Bala. ku pendant sept ans mënoo taxawal économie ñu ne la un an et demi jox nañ le premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man d'inspecteur des impôts la aw un million waaye boo fi amee say milliards

xam nga fu mu juume musul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool moo tax tubaab yi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ci la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz Tay liñu doon importer ci ceeb lu ko raw lañu importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu munul téye mbayam réew moom mënul fexé ba développé waaye bu aduna bi ci sóole yow nga soj parce que tay suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu souf si nga xamné yalla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tay suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer da ngay bay mënoo développer mënoo créer emploi mënoo am résilience mooy su amé problème ci àdduna bi nga mën koo dëkku ana loolu yoy moy priorité Sénégal ana nap gi jaay na géej ana cham gi zéro nga foné di nga développer réew ci anam gog ñu naan Adi nañu premier ministre dàq nañ premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu moy soppi moy tax ndaw ñi am liggéey motax tax pañ mi bax motax Euh, euh, euh, économie bi développé nax nga sa bopp dara du dox ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu foon ministre suñu scandale pétrole ci ministre yooyu la jaar suñu scandale Prodac ci ministre yooyu jaar suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beeg ñoom seen ci ministre yooyu la jaar suñ ci taxul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñi am seetlu yëpp jàpp gis nañ ni der commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ku bëgg a doon ministre wala nga am ay milliards saagal Ousmane Sonko Macky Sall fi mu fi mu fi mu yóbbu Sénégal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci Macky Sall rek la Sénégal eggee fi waxu waaso waxu xeet waxu région saaga suba ak ngoon suñu waxee ñu ne xale yi saaga ci ci Facebook bi déedéet xale yi dañuy développé ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen di saaga tous les jours. man de ken musuma deg ma saga ken gisuma gis gi ma saga kat saagakat Macky Sall ngay gis ku saga su ngon jot ko pare jox ko xaalis photo ak mom jabaram tok ñu photo fokk nga ni Senghor dina doon wacce république à ce niveau fokk nga ni Abdou Diouf dina doon wacce république à ce niveau fokk nga ni ablaye dina doon wacce république à ce niveau saga kat ñoy ñoy doxon ko bir pare nit ñi suñu bëggee wax nañu wax lolu mo gën waye suñu joggé waw gone passé fi nangam nangam bu ne Pastef yi anticorps la mooy yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développé ci ci biiram pour mën a xeex feebar boobu waaye guney Pastef fi jóguñu saaga kenn bu ne opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ne ci loolu lañu dëkk su bàngoon moo tax bu dee politique tam waaye ñoom addition de zéro la ñi ñu jël ñëpp ne dañ def ministre c'est pas eux qui vont faire des combats politiques kan moo ci gagné fi film ou ci ñaari élection yi passé ñoom tous dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo tous les duma Quel poids politique la ñu am nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre et premier ministre ministres dóor nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mën a nattee du prise en charge des préoccupations des Sénégalais du fenn foo mën a ni le gouvernement de combat nous ne un pas kon combat combat ak Ce c'est pas un escadron de bras cassés et de canards boiteux qui va combattre l'opposition Quel ci gagné gagné au bureau de vote Nous ñu ñoo ñuy combattre moo vrai gouvernement de combat Macky Sall xam ngeen général Moussa Fall commissaire Yagla, une partie de la justice et une partie de la presse lii mooy gouvernement de combat Macky Sall ah. du lële général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak leneen ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax nu xew ci réew mi ñu génne char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci xelu seen ah, xale yi ba dootuñu ñeme mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan dis nga un peuple qui dit non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye yooyu ay waxu de la ñaareel bi moy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tay xolal classe politique bi Suñu ñu dem élection 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat nee nañ Karim Wade du doon candidat Légui ñu ngi ruma daal naan Barthélémy Dias du doon candidat Déthié mi Amna na benn man pas ma je ko wax gannaaw yalla amul luy dund lu suis candidat. je ne candidat ne sais du lu wax waye lepp fan la jaar pas ngi jaar ci justice ci ay tapal yu kenn xamul magistrat Je bel bel bel bel bel ñun kenn ñoo Je kenn ñoo intime gis nga réew mi lu fi jara wax pas dinañ ko wax parce que dans une démocratie tout se discute amul sens interdit bu justice defee lu dul yoon ñu wax ko tey la justice est le premier bras de Macky Sall mom moy instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice waye nak lu ëpp touru lu ëpp tuuru de nañu tey parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul kenn ci dëkk bi la presse ma ngi féliciter Barthélémy Dias li mu wax dëgg la une bonne partie de la presse bokk problème la ci Sénégal barki yalla boy xol presse Sénégal nga xol presse Mali wala presse Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul ñeen ñu wax de yéen mom ñoo bokk coono ñoy naarandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourner ñoy faranando ci all bi sen patron yi dem mbeuk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen ci jox ñom lañuy waxal ay dor kat ay mbeuk kat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom ñooñu ñoo tax ñuy wax dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse dañ ko daan dégg même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moins de presse de pression am na waykat bu ne woon euh, nu mu ko tuddee ouragan ëppal asamaan Euh, jant leer ma un satellite satellite woon ma feneen dinaa liggéey ba am lu ma satellite nangam nangam ñu groupe de presse parti politique parti politique président de la république te président de la république bu ko mu de pression et de chantage sur les gens

a groupe de presse lo neex nga wax ci nit ñi te li gëna a kenn yow nga taxaw caméra au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau melni ku lu ne nga ko ko mu door la nga bëgg a au nom de quoi cette dictature ne marchera pas en tout cas moi ça ne marchera pas avec moi je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun lan lañ ñu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal ma ci wax ji may ay fenu nen, l'observateur en pleine campagne Sonko a reçu 195 millions de tuloy ooyu est-ce que am na lu gën a garaaw loolu kan mo ci wax ngeen foo ne dina continuer non dans ce pays parce que yor naa sama organe de presse rek lu ma neex ma bind ci nit doo xool ni père de famille la doo xool ni dafa am djabot, ci politique ay milliers de personnes topp ko ñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngon guddé bëccëg sénégalais dañuy tok di sétane sen télé nit di wax ñu naan ki mo mëna wax lu dul non parce que nit ñi légui dañoo yew motax tax li Barthélemy def and na ci man rew mi il va falloir crever l'abcès tam na lo xam ñu ko nangu li nak moy gouvernement de combat Macky Sall gouvernement combat Macky Sall c'est pas ces canards boiteux là